yëpp du administration bi. Mhm. du Sénat problème bi Macky la. moom moom ci suñu système mooy la clé de voûte des institutions parce que suñu système euh, espèce su euh, nu ñu koy waxee comme parapluie boo xam dafa am benn pucc ci kaw. Mhm. moom moo yore système bi yëpp waaw mhm. alors Macky bi mu fi nommé pour réformer les institutions parce que foofu la foofu la départ amoon na volonté jël Amadou Mahtar Mbow commission nationale de réforme des institutions ñu dépose seen i projet seen i proposition appliqué ci lenn dañ doon xas sax Amadou Mahtar Mbow ñu jógee fa def bëgg a réforme foncière dundooy am problème ba gedd euh, Souran àggali ko après quelques années après dara mhm. appliqué ko ci dara mhm. Macky osé jël référendum voté loo Sénégal yi référendum 2016 jël point yu ko ci na appliqué yeneen yi mu bañ alors que c'est le peuple qui a voté c'est sacré ça mm-hmm. Macky osé CEDEAO cour de justice nationale jël décision Macky ni bañ ni du ko appliqué mm-hmm. mais loolu moom la continuer c'est-à-dire que Macky du ma wax ni xamul loi damay wax ne amul culte de la loi c'est-à-dire toute la loi mooy nga mandi ci loi. yaa ngi ko doon wax nga ne contrairement Abdou Diouf contrairement mais Abdoulaye Wade ñi moo ko loolu Abdou euh, Diouf ñi moo ko Wade ñi ko mhm. mais moom ñime na ko te daf koy def pourquoi parce que chaque fois danaan comme noonu la léegi damay def man li ma neex parce que fii loolu la Sénat de depuis décision bi bi mu amee décision Ziguinchor bi euh, cour cour cour mm -hmm. tribunal de Ziguinchor. Mhm. dégg nga juge bi mu nee rek décision bi ele est irrégulière te wax na wax na ay fi mu ko est sur des procédures yu ñu waroon respecter affichage yu ñu deful et cetera mu ne lii c' est irrégulier kase ko radiation bi à partir de ce moment là la Ousmane Sonko am dëgg. ci yoon. Mhm. parce que dañ ko doon reproché ñun ñoo toog fii ñu ni ko. yow dañu la boo boo boo ñu la woowee yoon da nga war a. wuj yow yaa teg nañ ci sax ne ko yaay kan. Mm-hmm. man mii laa wax. Mm-hmm. dégg nga tey mu ngi engagé les batailles judiciaires. mais dañ ko waruñ ko jox dëgg ci li mu waxoon ni aw ma confiance ci justice. Mm-hmm. te actuellement ñu ngi koy jox dëgg ci loolu. dëgg gi mooy administration bi DGE ñimewul ñimewul gis nga li arrivé du ndir. waxuma ko woon fii bu ta tendale bu bu nee ox rek. bu joxe woon bu joxoon waa ji fiche bi te jotul instruction d'en haut rek am problème wuyu non wax naa ko fii ñemewu ko il n'ose pas ça jusqu'à quand Alaaji Assane ba ba kañ en fait non euh, ci laay ñëw nii la Sénat lañ joxoon ne ko léegi nag bis bu Sénégal àggee foofu nga xam ne dañu am benn chef boo xam ni moom day tëxlu du bëgg dégg dara def lu ko neex def loo administration bi lu ko neex parce que administration amul autonomie mhm. y a pas une un pouvoir administratif au Sénégal comme ni ngay waxee pouvoir judiciaire l'administration est sous tutelle parce qu'il y des règles administratives aussi il y a une hiérarchie administrative administration bi mënul àgg fenn fii bu fekkee les instructions ne von pas dans ce sens mënul nekk léegi nag bu àggee foofu dañ naan Sénat arbitraire léegi nag Sénat am na autonomie juridique. Mhm. benn maanaam ci wàllu yoon am nañ indépendance am nañ autonomie financière voté nañu le budget ñoo ko moom mhm. jël ay personnalités indépendantes name leen fa. jox leen ay prérogatives y compris ne leen sax man ngeen sanctionné lu benn agent de l'administration bu deful yoon mën ngeen substitué wu maanaam mën ngeen jël place administration bi su fekkee dafa bañ Sénat nekk ci yoon woowu bunt bi. benn mu dóor jëf jël ay responsabilités li ko war mu def ko mu ne eh injonction. DG delloo leen waa ji. Mhm. fiche jox leen waa ji fiche ñu xam ne Sénat bii mu ngi ci yoon wi deuxième phase avocat yi songaat Sénat defaat recours ne ko substitution. léegi Sénat mënoon na jël ay responsabilités. ñu ne elle ne peut pas se substituer à e. léegi nag ñu damm ñu dagg boppu Sénat far. maintenant euh, Ablaye euh, Sylla ak euh, le le vice-président désormais la la le magistrat à la retraite Ndari. est-ce que yéen a ngi fàttali lan la ñu lan la ñu mën a xaar ci ñoom. dara est-ce que yéen a ngi fàttali gi daloon Nafi Ngom Keïta ci OFNAC. OFNAC mhm. c'est la même chose. boo naree décider dans le sens bi nga xam ne neexul mag yi moom ci boppam mu jëli la foofu parce que li muy incarné mooy moom la Sénégalais yi fal. mais xamul ni en matière d'administration am na deux types de pouvoir yi ñuy mélanger souvent te dañ ko waroon jàngal si je sais que xam nañ ko mais ko war a jàngal citoyens yi pour ñu xam ko y a ce qu'on appelle euh, nu ñu koy waxee compétence liée compétence liée mooy yoon may na la yoon mais yoon wi daf ko encadrer li fii nga yem lii nga man lii mënoo ko d'accord beneen bi mooy pouvoir discrétionnaire am na cas yoo xam ne boo amee da ngay am plein pouvoir pour agir mais mënoo mélanger yow nekk agent ci administration wala nga nekk yore kilifa ngay mélanger pouvoir discrétionnaire ak compétence liée am na moment boo xam ne da am pouvoir discrétionnaire am nga ci droit mais am na moment boo xam ne si la personne remplit toutes les conditions mm-hmm. pour que ñu dugal ci fiche bi forcément da nga ko war a dugal ci fiche bi parce que foofa day am luy dugg moom la ñuy wax la compétence liée mhm. c'est-à-dire que tu es compétent pour def ko mais tu es lié à le faire tu es obligé de le faire de le faire d'accord mhm. léegi nag mënuñu mélanger techniquement administrativement le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée